waaw waaw ba tey euh, ñoo ngi fii nga xam ne moom mooy euh, festival bi ma tase ki nga xam ne tamit mooy Pétin kii moom jarul sax ñu koy présenté dañ koy daal di jox micro bi daal Pétin na nga def. waaw maa bu baax a baax a baax. maa ngi am jàmm waaw bu baax. waaw ñoo ngi ñëw fii si festival Tan Bombe bi ñëw ñu ñëw fekk la fi euh, ku nekk xam ne macha allah dangaa bëgg aar dangaa bëgg théâtre lan nga sentir si bis bi tey ba nga sol sa ñaari dàll tey ñëw fii. waaw bés bi lu ñu fi sentir mooy comme lu ñuy sentir si yeneen festival yi rek yuy am Kaolack yuy am Thiès yuy am Louga ñun ay comédien lañ ñun théâtre rek moo ñu ñor fépp fu ñu ko wootee dinañ def tuuba dem fa ndax man su may def sama anniversaire benn comédien du des ñoom ñëpp dañuy ñëw ñoom ñëpp dañuy ñëw kon nag tey Abdou Lahad su wootee nga xam ne sama anniversaire day déplacé fii ba Grand Yoff ñëw toog assisté ko ba mu jeex kon tey su wootee bésam dinañ ñëw nag waaw. <laughs> yéen a euh, may moom. El Vision amul solo amul solo. waaw non lu ma leen di may garaawul sax xam rek dama gis benn waay sànq ba muy ñëw. waa dama déglu parcours am dama kontaan. waa ji ay picc kanam rek lay toj am na herbilis 6. waaw xam nga ko y' a pas de sous métier kon ñun métier bi ñuy def jarul ñu koy xeeb bee boo ñu jàpp ko. waa El Vision Médias yéen ko déggandoo lan ngay tàggatoo. waaw amul solo bisimilah alhamdulilah tele bi yàlla na jëm ca kaw ca kanam. yàlla na dem ba mu nekk ci télé yu ñuy dégg ci àdduna bi waaw ndax sa moom day am jàmm quoi parce que maak moom du tey loolu lu yàgg la wasalaam. wasalaam kay yéen a ko déggandoo waa El Vision Médias kii damay laaj ndax moom am na wala amul nee lan mënu ma see jaaraat kii garaaw na kii war na xam ne yàlla am na pete mi garaaw na trop vraiment.